donte nag borom yi xam-xam ci wàllu bi nee ñu médicament yooyu dañ ko aaye ci Europe waaye mi ngi ci biir Sénégal di fi lëmbeem daañu ci ànd abigaay ci biir xabaar yi daañu xuus ci wàllum tàggat yaram tey la Sénégal di laale ak États-Unis ma ngay amee ca Brésil ca Jeux olympiques yam buñ ci noppee daañu ci boole gan gi honorable député Pape Birame Touré vice président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ni ki faram fàcce gi jàngeen jëf ci ànd bekk ñun ci seen télévision DTV ñuy tàmbali xabaar ginaaw nuyoo bi di ko tàmbale ci mbirum Nafi Ngom Keïta ak Ousmane Sonko waa PDS ak bokk gis-gis ñoom nee ñu fi mu toll ni tembe président daal daanaka doxinam dafay firnde lam doon wax naan daa bëgg daal ñu sakanal koom-koom réewum Sénégal moom euh, daal bàyyi la mu nekkoon ni aw yoonam loolu la ñu leen waaye tam ñëwaat nañ wax ni lu jëm ci dàq googu ñu yàq Nafi Ngom Keïta la muy firndeel mooy démocratie bu Sénégal moo tàmbalee suux dañ ciy xuus ànd ci ak Fatou Bintou jaay ana gestion sobre et vertueuse bi nga xamante ni nguur gi moo la doon woote loolu nag mooy waaj bi nga xamante ni kujjee gi samp nañ ko suñu sukkandikoo ci ñoom nguur gi daf fi nekk rek di teg ay daan ñi nga xamante ne dañ koy déranger ko ci mel ni Nafi Ngom Keïta ak Ousmane Sonko. jaay doole la Nafi Ngom Keïta dàq nañ ko euh, suspendre nañu Ousmane Sonko euh, waa taxawu Dakar barki Demba Ndiaye ñi ngi doon def manifestation ñu interdit la PDS ñeenti at a ngi ñu leen di tëj ak di leen tere ay manifestation Macky Sall daal la mu waxoon ne opposition bi dama leen di dammat ba ñu nooy ma teg leen benn place loolu la gën a def que liggéey bi ñuy xaar si moom. mooy wane rek ni mosuñoo gëm transparence mosuñoo gëm gestion vertueuse luñ doon wax la rek seen gémmiñ waaye lii ñu gis ni jëmul kër te yaakaar naa ni Sénégalais yi mat nañ mat goo xam ne danañ xam ne ni kii ñu tànn du waaja ndax mën a waaxu xam yoon waa ko gënt sama gaa yi xamuñu yoon wi. waa PDS ak waa bokk gis-gis jàpp ni nguur gi rek dañ fi nekk di firndeel seen i kaddu ndax kat dañu waxoon ni dañuy réduire opposition bi ci expression bu mu doon loolu nag ñoom duñ ko nangu. yi ñuy def def nga xam dara waral ko lu pour mën am un second mandat respecté tuñu justice dañuy def lu leen neex respecté tuñu assemblée nationale dañ fay def lu leen neex respecté tuñu wàllu doxalinu exécutif bi nga xam moy ni nguur gi doxee lu lepp amatul ben norme amatul vertu li leen ñu soxal dal moy and ak ay seen ay nit ak ñi nango transhumé xex këppatal nit ñi. te jàppaar naa ni réew mi amna ñu taxaw gisee neneen dul ñom takku waru jog nak boole seen doole jëlee fi lii fi ne ngir fexe Sénégalais yi delluwaat ci jàmm buñ amul sa développement ñu am jàmm am naataange waaye ñii ma gis ni nërmeel réew mi lañ gën a jublu ko defar ko. suñu sukkandikoo ci politique yi nga xamante ni ñoom interroger nañ leen ñu jàpp ni li nga xamante ni moom la Ousmane Sonko wax amul fenn fu mu laaleeg obligation de réserve mu nekk ay xibaar yoo xamante ni ñoo ngi ko jëlee ca surtout jëwrin bi ñu dénk wàllu koom bu fekkee nag keneen ki di Nafi Ngom Keïta ñoom dañu jàpp rek moom dafay indi ay leeral ci ab gestion boo xamante ni dañu supposé ni dafa am njuuj njaaj. jëf leen ci xibaar mi ngi soxal yokkutem député ci biir Sénégal xam ngeen ni nguur gi ñu bëgg na ci ay pexe bëgg indil député yi maanaam fukki député ngir ñu nekkal diaspora bi ca pencum ndawu réew ma kon faaw ñu yokk limu député yi mu jóge ci ci ci ay député waaye nag opposition ñoom dañoo mer wàllu gune mel ñoom de Croix ak ñi mu àndal waa FPDR ne ñu loolu yi ay caaxaan rek la dañ ciy xuus ànd caak Louis Sina Sagnon mébétu nguur gi pour fexé ba am ay député yuy représenté sénégalais yi ne bitim réew fi ci assemblée nationale moom mi continuer di indi ay taw yu bëri sénégalais yu ci bëri comprendre ñu lan moo tax président de la république bëgg indi bobu ndogal waye ñi di wa front patriotique pour la défense de la république ñom lu ñuy ñaawlu moy nombre de députés yu ñu bëgg yok def ko 160 bu ñu sukkandikoo ci sen coordinateur Sénégal amul lu mu fayee fukki député encore donc man andu ànduñu ci lolu dañ wax né Euh, bu dee dem bokk dogal na ko ba pare nee na dix ba tey mais dafa bëgg a yokk ci cent cinquante députés ñun dañu ne assemblée bi bu ko kenn yokk parce que cent cinquante députés diis na déjà torop ci Sénégal nga ne da ngay jëlati fukki député di ko yokk ci téeméer juróom fukk àndunu ci am na nag ñu wax ne ñun man dama contre euh, diaspora am député mais loolu waxu waxu ko daanu ci saret la non député ba nekk New York wala mu nekk Japon man naa défendre intérêt wu Kédougou parce que sénégalais la moom Mamadou Diop Decroix moom bu weesoo parti bu mu bokk am na xalaatu boppam ci mbir mi suñu sukkandikoo ci ay kàddoom APR dafa nekk di def politique li mu ci jublu mooy utal ay place ay responsable yoo xam ne amaguñu poste di député yi Macky Sall di wax ak waa nguuram ci ci ci Euh, sénégalais yi ne bitim réew ay naxaate la fukki député mu ngi wuta placé def député ay nitam yu ne ci bitim réew te duñu jariñ waa sénégalais bitim réew duñ leen jariñ dara nañu weesu vraiment jéem a nax nit ñi euh, politique gu diaspora bu nu bëggee diaspora bi ñu ne bitim réew di sénégalais euh, ni ñu war a tekki ci koom-koomu réew mi ñu tekki ko kooku beneen approche la boo xam ne ñoom ñii amuñu ko. diaspora moom Sénégal def ko considéré comme quinzième région am loolee tax nag nguur gi bëgg ñi nekk bitim réew am ñu leen représenté fii ci assemblée nationale même bu fekkee nag ñu bëri ci réew mi ñoo gis ne loolu yàq la. Louis-Tina Sagna jaajëf leneen ci xibaar day wàccaat fii ci biir studio bi ànd ak euh, député Pape Birame Touré Pape nuyu naa la. maa ngi lay fay Modou. gis nga sàng ni waa wax. ñu ni kët gis na ni ñoom fi ñu toll nii wàllum démocratie moo tàmbale dee ci nguuru président Macky Sall la koy firndeel nañu bokk na ci tekki ndomba tànk na fi ngom kayita coof naag waaye tamit suspension Ousmane Sonko ci impact domaine jóge ci tamit Mourou Diagne Fada wala sax honorable député Mamadou Diop Decroix génn sàngoo itam nee na lu jëm ci 10 député yi bi yokk pencum ndaw réew ma loolee xel nangu ko ndax day yokk charge état bu Sénégal jàngat bu ci loolu waaw jàngat maam ci loolu maa ngi lay gërëm ci invitation bi mais li ma bëgg a njëkk a wax mooy ci point bu mujj bi laay commencé mooy yokk nombre de députés yi nga xam ne wax nañ ko assemblée nationale. defe naa ne député boobu wax léegi ba léegi dafa nekkul en phase ak le peuple sénégalais parce que nañ xam ne ci référendum bi passé lañ wax ne dinañ cëral député yi nga xam ne ñoo nekk jaspora ñoom ñu mun di fekke li nga xam ne moom mooy waxtaanu. pencum ndawum waral c'est parce que bu xayma li bitim rew du duggal fi ci de milliards ci économie dafa am doole ba nga euh, war leen may ñu ñëw di tew fi nga xamné Nous lañuy pour fekk ko nga lañ ci euh, bi nga député mais fukki député ñu ko ñu diaspora bi fekk si député yi Sénégal mais ban problème la wara am lan la mun yak d'autant plus que ñooñu bu ñuy ñëw dañuy ñëw ak li nga xamné mom moy préoccupation diaspora xam nga mom wax na légui mm-hmm. néna député yi nekk fi mën nañ nekkal diaspora mën nañ nekk national d'abord député bi dafa national d'accord na mais dafa aussi local. Mm-hmm. dafa jóge ci goxam xam problème ya fa nekk ñëw diko poser mais di poser aussi les questions nationales mom nak amul question locale mais député yi am nañ question locale ci la même façon la diaspora yi nekk ci bitim réew xam problème yi mhm. xam aussi sen contribution à wara mëna indi en termes de réflexion de réforme pour que économie mun a dox. Mhm. ñoom ñu indi ko ci point de vue boobu man waxuma ko. Mhm. tey nee bu ñu wàññee député yi proposition boobu bu ñu wàññee député yi dañuy wàññi waat député yi nga xam ne ñoom ñooy gox yi parce que décret lañ jël en gox bu nekk li ngay représenté ci département. Mhm. ñun am nga ñaari député am nga benn député ñi am ñaari député dañ leen di wàññil benn muy benn ñi amul benn euh, dañ leen di euh, retirer seen député déedéet gox yi duñ ko nangu donc da ngay yokk li nga xam ne moom moo ñëw lu bees donc ñu mun a teewal ñi nga xam ne moo bitim réew ah. beneen bi wax nañ ko of nag mais nag nañ xam ne ba nga xamee ne dañuy jël euh, madame Nafi Ngom Keïta mu nekk OFNAC d'abord am na compétence sénégalais la jub na mais nañ xam ne li njëkk a gën a motiver mu nekk fa mooy président de la république moo am kóolute ci moom jël ko nommé ko ci décret décret boobu dafa tënku ci ay charte charte yi dafa ne yow boo fa nekkee ba def fa ñetti at mun nga yeesalaat wala waaye mun nga fa jóge lepp mu ngi jël ci dogalu président mais bu féké da nga def mission ba yegg fofu président jël dogal mhm. jël décret jël la fa indi fa sa morom man défé nané koku warul am euh warul am coow jafe nak mhm. euh mënul ñak waaye nañ xamné le président def teg ko ci yoon mhm. muy prérogative am wax dëgg yalla kenn mënul apprécier xam nga nit mun naa jàppale apprécier ne war na ko faa jële waru ko faa jële mais loolu yëpp defe naa ne di wax loo xamul la président moo am dogal ak sañ-sañ ci la base de confiance jël décret mhm. mais bu ko jëree choisir ko mu neex vraiment defe naa ne kooku nañ ko nangul mu nuyu honorable député Pape Birame vice président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar dañ ñëwaat ci moom ndax mooy doon ganu xibaar yi waaye gëj xibaar yi benn wàll tam bu ñu jógee dañu ci di Mame Mbaye Niang jàppante na fa diggante ak ay ndaw yu ni kat ndaw yi Mariama Sarr meeru Kaolack ndangaan bi la daañ ñëw ak moom Pape Birame naka la jàngate wàllu gune mel xibaar yi wuy ci benn wàll ñu wax ci mbirum libéral ak démocratie ci biir Sénégal gii dañ ci amal ndaje ci biir Sénégal la wax mooy jot na nag ñu di gën indiwaat mbirum libéral maam libéralisme ci biir Sénégal gii ndax sénégalais kat ñoom bëggaat na lool ñu ñëwaat ci bopp réew mi ko wax loolee mooy ki nga xam si rek mooy Lamine Ba ndaje man woote woon démb kàddoom jot na caa jib jëm moo suñu reporter

léegi nag booy dem ba xamatoo fa nga jëm da ngay dëpp nag daal di dellu fa nga jógee woon ànd ak ñi nga war a àndal libéralisme mooy solution ndax socialisme 40 ans yi fi nekkoon ba Diouf di mi dafa demoon ba mujj mu loof lompoñ Abdoulaye Wade président Wade bi mu dikkee ak ay nitam ñu ànd ak moom réew mi démarré waat ba mu demee ba léegi aussi coono yi ni waat na te xam naa ne coono yi xañ na jombul président bi fi nekk ñi mu àndal da cee ñu xarañ xañ na moo tax mais bu àndoon ak ñi mu war àndal sûrement dina a yomb ñu xuus jëm ca Mbour ànd fa ma Mamadou Diop jàpp leen ni kon coow li nga xam moo lëmbe yoon ci biir Sénégal ba léegi jeexagul diggante waa UMS muy kuréel bi amul liggéey liggéeykat yoon ci biir Sénégal gi la ñuy waxee mooy ñoom dañoo gis ni yoonu Sénégal amul indépendance bëgg nañ ñu gën koo doxal ci dëgg ba moom seen bopp seen liggéey ñu mën ko def na mu gën a ware ndaje man ca woote woon ma nga woon ca mbuur ci tewaay Mamadou Diop indépendance justice Sénégal moom lañ gënoon a waxtaanee ci ndaje bi nga xam ne union des magistrats bu Sénégal ñoo ngi koy amal UMS delluwuñ gannaaw benn yoon ñi ko jiite li ñu bëgg mooy indépendance boobu ñu am ko ci ni mu waree. justice mooy doxal yoon te yoon pour nga doxal ko justice dafa war a gën a moom boppam te loolu mooy suñu soxal bu njëkk te ñu ngi ciy ñaax suñu collègues yi fu ñu mën ci toll que justice bi taxawaay taxawaayu ndey ji sax def rôle def liggéeyam ci ni mu waree. sàmmonteeg li nga xam ne mooy sarti réew mi ba nga xam ne peuple bi nga xam ne moom moo tax ñuy wax justice ñu mën a euh, bég ci li nga xam ne moom la magistrat yi di doxal muy seen liggéey. yeneen point yi nga xam ne waxtaane nañ ko jëm na ci condition ñiy liggéey seen bërëbu liggéeyukaay yi waaye tamit tàggat bi nga xam ne moom lañ leen di tàggat. justice pour mu mën a dox dëgg dëgg dëgg il faut mu am jumtuwaay yu wér yu mucc ayib. donc nous ngi xaar que nga ne ñi nga ne mi nga ne mi que loolu lépp ñu ci point nga ne lañ ko ci interpellé ki dénk wàllu yoon ci Sénégal di dalal union des magistrats du Sénégal en tant que président du conseil supérieur de la magistrature dina défendre donc euh, ñu ci ay mi nga ne euh, dina gën rafet indépendance dafa am solo parce que dafa ci suñu constitution donc euh, magistrat yi euh, war nañ ñëf seen liggéey te ñu bañ a am benn pression euh, pression de l'exécutif mais pression aussi euh, li nga xam ne mooy oligarchie financière ou maraboutique pression bi nga xam ne mooy xaalis tamit xaalis bi nga xam ne dina tax doo def sa liggéey loolu yëpp alors nañ war nañ bay magistrat yi ñuy dem s'en liguey mu nek liguey bu rafet parce que état de droit état moderne moy li ko moy euh, justice té justice ñi ko animé principalement d'abord moy magistrat magistrat yi attekat kat ñooñu nga xam ne magistrat yu Sénégal ñoo ngi ci sali Portudal di amal benn assemblée générale té biñ ci japp ren nak moy justice ak développement durable. mamadou diop jaajëf lu jëm sax ci mbirum yoon ak la ci am ci jafé jafé maître kaba mi dénk yon ci bi sénégal la mu xamlé moy légui nguur gi mi ngi ci ay pexe ngir xool maanaam lu indi savre ci walu gogé jëm digganteem ak way yoon ak nguur sénégal gi way tam yëmu ci maître kaba wax na lu jëm ci walu mbay ak diop ab doomu sénégal la bu ne ci loxol yoon ci arabie saoudite mu ni kat nguur gi mi ngi def kem carton ngir mbay ak ñëwaat ci bi sénégal ñu tewlu maître kaba mamadou diop da ngeen di wara bay seen xel que magistrat yi dañuy juger so gisé ñu def ay recours man nañ la attee ci juge d'appel nga nga am nga ñaan d'appel appel soo demee juge d'appel appel moom tamit euh, dafay seetu jéem a xam ni mbir yi demee mu attewaat su fekkente ne d' accord loo ak atté boobu nga dem ci cour suprême loolu yëpp loolu la ñuy wax recours de justice. indemnisation bi beneen affaire la comme ni ma la ko waxee ñu bare euh, ñi nekkoon ci mbir bi indemnisé la leen donc jot nañu sen xaalis et eh ben, ñii tamit eh, su saisir nañu donc eh, la justice pour la partie indemnitaire xam naa tamit nañ leen indemniser. fuñ ci toll moy de le ministre des affaires étrangères muy def liggéeyam état du Sénégal mu ngi def liggéeyam président de la République Macky Sall euh, bépp sénégalais fo mënta nek ci aduna so amé problème nga am tolof tolof euh, état bi dina le protéger. loolu la ci xam luma ci mëna wax moy ay état yu bare am nañ coopération judiciaire té coopération judiciaire bi day tax rek euh, day faciliter diggante benn état ak beneen état par lu jëm par exemple ci commission rogatoire ak entraide judiciaire loolu la té am nañ ko ay état yu bare donc avec l'Arabie saoudite tamit luma ci mëna wax moy di ña nekk te am foofu ay problème ñu ngeen toppatoo seen biir. jóge ca Mbour wàccaat ci Ndakaaru dem quartier ba ñuy wax Dalifort ña fay yeewoo mer ba fut lañu def nee ñu seen quartier ba amul kaaraangeem viol maanaam yàkkataan xale yu jigéen ñi sàcc ak agression moo fa lëmbee ñoom nag nee ñu fi ñu toll jot na kilifa yi jàppale leen waaye ñoom la tax kilifa yi ñëw jonuñ ci ay pexe seen pexe yi bopp ngir xool nu ñu sampee kaaraange seenum gox Abdoulaye Wanyanga faat bu ñu faat xale bi nga xam ne mu ngi am fukk ak ñeenti at moo waral ba ndaw yi yile yëkkati seen baat di ñaawlu lu lu ni mel moo waral tamit ñu organiser ab benn conférence ngir yee askan bi ci ñaawteef yi nga xam ne ñu ngi koy nemmeeku foofulee ca Dalifort xeex bi yàgg nañ gis ay ay mag di fi xeex di rayante mais bu ñu demee ba gis ay xale yu ndaw à l'âge de quatorze ans quinze ans ñuy xeex di dóorante ay di jamante ba kenn ki rey morom bi da ngay xam ne mu ngi commencé bëri. artistes yooyu jaare foofu di sàkku rek ñi nga xam ne ñoo ŋànk nguur gi jamono ji ñu taxaw temm yokk kaarange bi ci seen gox boobu lee moo waral ba ñuy sàkku sax ñu tabaxal leen benn poste de police ca Dalifort. bon sécurité bi liko liko bugu nañ mu ñëwaat bugu nañ sécurité mu am fi carrément vraiment soxla nañ ko instant bi ni te suma ma waxtaanee ak monsieur le maire mu ne ma ñu ngi construire poste de police ci ginnaaw mairie bi lolu ça me fait plaisir. ñi ngànk bobule gox fas yéene na ñom tamit duggal seen loxo ci xex ñawtef yooyule dañu fas yéene tamit jappalé ndaw yoyu ci bobule xex ñu xam problème sécurité du compétence transférée ba léegi état moo ko yoral boppam il va falloir aussi population yi ñu leen di sensibiliser ci loolu sécurité état moo ko yoral boppam kon donc tey kuy xaar mairie bi ci sécurité je pense que yaa ngi dem ci beneen euh, jeu bi nga xam ne bokkul ñu ngi ciy def li ñu mën nag mais première sécurité bi nit ki moo ko war a yoral boppam ñaawtef yu ñu nemmeeku jamono ji foofule ca Dalifort nekk na loo xam ne neexul benn ñi nga xam ne ñoo ci kuréelu artiste nekk ca boobule gox ñoo waral ba tey ji ñuy yëkkati seen baat di sàkku rek ñu wut ci ay saafara Abdoulaye Wadianga jaajëf leneen ci xibaar mi ngi jëm ci wàllum médicament yi bon yi ne ci biir Sénégal ndekete lu ëpp ñeenti téeméer xeetu garab mi ngi ci biir pharmacie yu réewum Sénégal gi ca garab yooyu kat boo ko xoolee ñaare dañ ko aaye ci Europe ndax garab yi bon la daanaka pochen la day fàt doomu aadamam lu ni mel nag ne jot na Sénégal jóg ci wàllu googee ko xamle mooy eric Goudiassou moom jàpp na ni lu jig njàkk état bu Sénégal mooy njàkk am na lu mu dénk soxna bi Gaye donc je pense que nous devons en tant qu'Africains aller au pied des guérisseurs comprendre qu'en de santé. sama yaakaar ñun africains yi dañu war dem ci ñii di fajkat yi te war a xam ne ci wàllu wér yaram amuñu dara lu ñuy jégaani ca bitim réew waaye itamit dañu war a gëm li nga xamante ni moo baaxoo ci ñun bu ñu bëggee gën a dëgër ci wàllu wér yaram rawatina ci wàllu góor ñi est-ce que xam ngeen ne lu toll ci ñeenti téeméeri garab dañu ko tere ca bitim réew te garab yooye mu ngi fii ci suñu pharmacie yi loolu dafay jaaxal nit ñi. organisation mondiale dollars Le gouvernement continue de fabriquer des dialyses. Mais pourquoi faire des dialyses alors que nous continuons de fabriquer des, mal des, des malades insuffisants rénaux leneen ci xibaar ñu wi di xuus mi ngi soxal mbirum xale yi ci biir Sénégal xale yi nga xam ñu ngi ne ci mbedd mi di yalwaan lu ni mel xeex lañ ci bëgg a jógtee nguur gi ma nga ca di ay sàkk pexe ngir bëgg a jëlee xale yi ci mbedd mi waaye itam kuréel yi nga xam pour ñu fenn ci wàllu nguur ñooy jóg nañ taxaw di jàppale état ci wàllu googee la ñu xam le mooy gis xale bu ne ci mbedd moom lu ñàkk jaadu la ndaje man ci watoon yaatu woon ci teewaayu El Hadji Moussa Beye ñoom ñëpp seen mbëbët mooy taxaw temm wëyal di ñaax nguur gi ci li jëm ci génn gone yi ci mbedd mi ay kuréel ay association ay kilifa ci politique ñëpp daje nañu ngir rekk wax nguur gi mu wëyal opération bi jëm ci génn gone yi ci mbedd mi bépp sénégalais eh, bi nga xam ne xalaat nga te gëm nga ni xale warul nekk ci mbedd bi di yelwaan walla muy liggéey yenn xeetu liggéey yoo xam ne dina ko tere jàng dina ko tere màgg ba doon màgg bu responsable bépp sénégalais ñu woo la tey fii nga ñëw taxaw ne man mi sénégalais dinaa engagé wu jàppale nguur gi ci mesure bi. ñi nga xam ne dañ leen di yelwaan loo ci yelwaanu exploitation ñun ci suñu bopp mën nañ taxaw ci koñ yi ne dootul am loo appel boobu laa lancé suñu bëggee loolu état bi tam aussi nu koy invité bu mu reculer des millions de sénégalais ñu ngi taxaw actuellement ñun ñu ngi jot message partout. naam opération baa ngi wëyandi waaye seetlu gi benn la gone yaa ngi wëy di taxawaalu ci mbedd mi. acteurs yi li nag ñu jàpp ne ngir ñu dakkal ko faw rek ñu appliquer loi yi jëm ci ak ak yelleefu gone yi. mobiliser pour pour ñu mën appliquer loi bobu euh, ni ñu ko waré appliquer parce que li ñu gis moy mesure bangi fi mais xalé yi ñu ngi continuer di yalwaan xalé yi ñu ngi continuer ci mbedd mi ça veut dire donc amna lu dess so gëstoo ci constitution mi amna ci ay disposition dañu war ar xalé yi amul ben différence entre dom, ku doomu baadoolo ak doomu ki nga xamné ne ñun ñep ñoo yem xale mais da dafa rusul sax. xale bu ndaw des fois ngay dajeeg moom ci mbedd mi. ay gone ay politique ay kuréel ki association ñoom ñëpp nag ci seen teewaay gëddal nañu ndaje bi ci li jëm ci génn gone yi ci mbedd mi xam xamle nañu ne dañ ci wëy di ci gunge njiitu réew mi ngir rek yelwaanu gone yi ci mbedd mi mën a dakk leneen ngi jëm ci wàllu Ousmane def ba natt def ab bilan càmbar li nga xam mooy FIDA liggéeyam ci wàllu mbay ci biir Sénégal kilifa gi nag ñëw na fi càmbar na liggéey bi lanu gis mooy dal na xel waaye faw ñu yokk jéego yi Mansour Sow docteur Kanayo Wenza di président bu FIDA FIDA Fonds international de développement agricole am mbégte lool ci doxum nemmeekom bi nga xamante ni amal na ko fii sunu réew. moom nag mbégteem jógul fenn fu dul taxawaayu PADAER PADAER di programme d'appui au développement agricole et à l'entrepreneuriat rural ak lii di PAFA di ab projet boo xamante ni tamit mi ngi yëngu ci wàllu mbay. ñoom ñaari projet yooyu nag dañoo bokk di xeex lu jëm ci wàllu ndóol rawatina nag fii ci àll bi. commune ci biir commune bu Dioulacolon gannaaw ba Pader ñëwee ba tey jamono ji mën nañ ne dañoo féex bu baax lii di liggéey yi ñu doon defee ak sunu loxo nag jamono ji wàññeeku na bu baax ndax dañ ñoo jox ay nag ak yeneen jur yoo xamante ne dinañ ko mën a sëf ñun nag kontaan nañ bu baax ci Pader. golle padayel le bu doon am ay jafe-jafe yu dañu doon dem uti ndox laataa ñuy dem tool ya waaye nag jamono ji wàññil nañ ñu jafe-jafe yi ñi am ci biir kër yi ak ci tool yi mi ñaama hen mi njaxa mi njeeya hen mi nawtora tey jii jox na leen lépp lu jëm ci wàllu ay nag jox leen sëmmaar jox leen xuus yi jox leen chari jox leen matériel boo xam ne moo leen permettre ñu mën a ñu mën a bay te duñu dépensé coono bu bëri donc tey impact bi tey mooy tey jii si tool boo xoolee gisuñu fi paam yu bëri parce que dañuy labourer mu gaaw dañuy labourer mu gaaw té appui ensuite ci biir appui bobu jox na leen lépp lu jëm ci wàllu semence certifié jox na leen ko jox na leen engrais jox na leen urée jox na leen herbicide sax jox na leen ko ak pompe herbicide pour que ñu mën a bay ba nga xam ne production am dana yokk. Padayer nag suñu ko nemee ko moom bokk na ci loo xamante ni fu muy yëngu ay gox ak goxaat yu mel ni Kédougou Tambacounda Matam ak Kolda. foofu sax xeexam bépp da tënk ci wàllum xeex lu jëm ci wàllum ndóol waaye tamit fexe ba jële fi lii ñu in sécurité alimentaire maanaam fexe ba nit ñëpp mën a lekk saa yu leen soobee waaye tamit fexe ba yokk komu ñi nga xamante ni ñooy ay agriculteur ak ay éleveur programme bi sax daa taxaw tem ngir wutal xëy ndaw ñu bare bari rawatina ndaw ñi nga xamante ñoo nekk ci àll bi ak jigéen yi loolu sax moom la def fii ci Kolda ndax ndaw ñi tey ji ñu ngi leen di ci naka la ñuy def ba tabax ay machine waaye tamit toppatoo lii di ay machine agricole am na ñoo xam ni bu ñu paree ñu gis ñoom qualité parce que nit ñi nga fabriquer nit ñi du ñu doon benn qualité yi bu ñu fabriquer ba pare nag am na ñoo xam ne am nañ qualité dañ leen di jël recruter leen ñi nga xam ni euh, mënuñu leen jël tamit suñu attanuñu leen ñu defal leen seen papier ñu dem feneen dañu wutal ay ndaw ay xëy ay xëy yoo xam ne du nekk xëy yoo xam ne xëy tey nga xëy suba doo xëy xëy yoo xam ne dafay dafay doon xëy yu continuer yoo xam ne dinañ dinañ moom seen bopp ci maanaam wàllum liggéey bi tey bu ma bu fekkee ne wàllum post récolte jàll na peut être daañu am leneen loo xam ne ñu ko mën a def maanaam fabrication matériel agricole li ñuy wax maanaam defar matériel agricole lu mel ne ay huusin lu mel ne ay chari lu mel ne ak kii liggéey bi daal day continuer ñu suñu bopp loolu créer ay emploi yoo xam ne day continuer FIDA di Fonds international de développement agricole nag moom mu ngi ñëw ci Sénégal ci atum 1979 moom ba léegi nag tënku na ci jàppale ñi nga xamante ni ñoo yëngu ci àll bi waaye tamit mën a yokk li nga xamante ni mooy sécurité alimentaire ba pare yokk li nga xamante ni tamit mooy nutrition. docteur Kanayo Wensa tax na ba mu mën a xool waaye tamit càmbar tolluwaayu réalisation yi nga xamante ni nag PADAER jot na ko fee def ak PAFA muy réalisation yoo xamante ni am nañ solo te jural mbégte bu baax président bu FIDA. jaajëf Mouhamadou Mansour Sow aslëf ci wàllum tàggat yaram Sénégal xam nga ni tey xibaar yi gan gi mooy honorable député Pape Birame Touré vice président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar maire de Diakhao honorable nuyu waat naa la maa ngi lay fay di la nuyu Modou voilà ñu ñëw ci waxtaan wi bokk na ca ni la xew ca Saloum Kaolack Ndangaan ay jàppante am diggante ñu bokk parti APR alors jàngat boo ci am bu demee ba euh, caravane vacances citoyennes bi dem ci Kaolack ay ndaw ministre bi ak ndawu maire ba laale ci gox bu ni mel Euh, waaw donc euh, li ma bëgg wax mooy euh, jàppante moom fu mu am ak xeex yëkkati coow dama koy ñaawlu lu rafet parce que nit ñi waxtaan ba trouver un terrain d'entente ñu def lépp ci jàmm mais mun nañ ko comprendre aussi parce qu'il s'agit de jeunes ay jeunes ñoom ñoo nekk di lente parce que tout simplement am une position politique am une vision politique ak leneen mais li ma bëgg a wax mooy quand un ministre de la République jóg pour une mission républicaine man républicain la bo bokkee ak moom xalaat nga and bo bokul mom xalat nga dem top parce que un ministre de la république waruñ ko sanni xeer koku dama koy défendre ci fuma ma nek ak ku mun don parce que c'est l'institution il faut que bu féké am nañ des divergents qu'on puisse régler ça en interne mais que mu pas mu tenir sur des activités, euh, mu bañ a ci ay activités yoo mm-hmm. activité républicaine la parce que ka fa jëm demalu fa parti dafa demal état du Sénégal donc il faut que ñu gëna sétat suñu position. Mhm. te bayyi li nga xamné moy suñu xex ñukoy indi ci biir mhm. état. li ci jaxal ñu bari honorable moy dugguleet muy am bu yagut amoon na géejewaay président Macky Sall nek ci banlieue bi gisoon na ay jege ñaali Aliou Sall ak keneen ca gox ba xex ba nit dem ci l'hôpital kun denk rew nga war liggéey pour rew mi Sénégal fim toll tay problème faju problème njang problème bay ñu denk lu toll nga war ci xol saafara nga am jottu di xex lolu muy nuru. ba ba ba ba àdduna di tukki di nga gis ne nit ñi danañu par moment am ay jafe-jafe di ko indi ci xeex di ko indi ci xuloo àdduna moo demee noonu mais loolu yàqul dara ci mission bi nga xam ne président Macky Sall mu ngi koy def parce que ba mu demee géej waaye gis nga réalisation yi mu fa def gis nga aussi lañ fa commencé ci liggéey donc lële élément bu ndaw la rek boo xam ne ñaawul nañ ko mais mun nañ ko waxtaanee ba dootul am dama bugg a wax ne amul benn impact ci li nguur gi di doxee mais lu ñuy ñaawlu la tout le temps boo fekkee am na ay kaddu yu ñagas yu tegginuwul am na aussi ay jaay doole yu am mais dañ koy ñaawlu mais dañ koy comprendre aussi mettre ko ci contexte am parce que contexte politique moo mel noonu parti bu fu mun di nekk président bu fu mun di nekk sa njaboot léeg-léeg dinañ am ay yëngu-yëngu waaye nag lii euh, ngay veillé mooy mu bañ a gàllankoor dara ci doxinu état te loolu amul kañ la politique bi di jeex moment bi ñu war a liggéeyam ndax en tant que ministre Mame Mbaye Niang yore ndaw ñi ak seen mu xëy bu demee ci gox waxtaan bu mu war a doon nu su ma def ba trouver solution ci xëyum ndawu Sénégal bi am jafe-jafe ayat boobu ak léegi defuñu ko ñu gis ni sax conseil ñu gis sax ni maanaam caravane vacances citoyennes bi yàgg nay am mais bu doon xool bilan tey

maanaam wutal nit ñi xale yi xëy mm-hmm. mais balaa boobu ñu former leen te gis nga xëy bi ñu mën a wut mu nekk xëy bu wóor mm-hmm. nekkul ci njaay nekkul ci leneen ci suuf si la nekk ci mbéy mi la nekk te tey Sénégal boo demee ba Kulikoro boo demee ba feneen di nga gis li nga xam ne moom mooy ay territoire ñu aménagé ko muy ay dakk tey ay xalé ñu fay liggéey di am seen xaliss ba paré di mëna jël euh, seen seen bop en charge benen bi moy formation bi mm-hmm. tey xam nga ne tey ay université de métier ak fo xamné xalé yi mëna leen former ba ñu am métier loolu yëpp amna donc politique de jeunesse wax dëgg yalla amna ndax rapport yi nga xamné fonction publique ak yeneen organisation yi nga xamné dañuy recruter ay xalé mm-hmm. génne nañ ko pour woné statistique yi maintenant il faut que ñu continuer parce que aussi emploi tu jóge ci suuf ci kaw manam mm-hmm. rek wad dañ koy xalaat jëfe ko togg ko ba mu ñëw te ci la président Macky Sall nekk ci loolu la politique aussi état bi nekk. voilà honorable ci beneen biir kaaw Ousmane Sonko dañ ko suspendre euh, ndax nañu daal dafa am lu mu ni ay mbóot lu muy nuru ku aj da bañ ko teen foofu la nguuru président Macky Sall toll wala. mais c'est que Ousmane Sonko dafa amul benn éthique yow boo nekkee fonctionnaire état fonctionnaire dafa am lu ko régir. gis nga tay bo jappé président Abdou Diouf bi fi jóge bo jappé euh, Ousmane Tanor même bo jappé président président wad dañu nekkone au cœur de la gestion mais tay sen activité politique warul mun tax ñom ci boppam la nga xam dañ ko gérer ci responsabilité état ñukoy koy dans la rue mu muy lu ñu war a nëbb muy luñu ñu warta donc koku dafa nané xawmu lu muy aspirer parce que dafa jël casquette politiquam donc di ci mbubboo pour wax né da fay dénoncer une gestion bo xam dafa nekul gestion bu baax té du dëgg je pense que da fay utiliser li nga xam mo moo nekkoon position en tant que fonctionnaire di bëgg tax nit ñi xam ko di bëgg tax aussi mu am position politique mais loolu na xam sénégalais yi comprendre nañ ko mm. lepp li ma ci mëna jangat moy wax dëgg yalla wan na mata dem pour diriger li nga xamné sax moy association de de de de de euh, ASC culturelle et sportive. Mmh. waxatuma la un parti politique parce que rew bo ci nekkee di def da ngay assumer toutes les responsabilités. ba pare la nga xamné aussi mo nek ci gestion ba. bu fekkee da nga tenir par secret professionnel nga bayiko fa secret professionnel. nekul ne dañuy de lu yone yoon déedéet dafa am secret professionnel parce que la togg fofu aussi fa la waré président Macky Sall mo waxone rupture bonne gouvernance dafa mel son Ousmane Sonko dafa ñëw ngir jàppale président Macky Sall ca loola gis la aw ci yoon mu wax ko kon daa mel président Macky Sall dafa weddi boppam ci ay jëfam. mais pour Ousmane Sonko réew mi intéressé woo ko dama la ne dafa am agenda politique am am fu mu doon liggéey génn di euh, sos et puis dafay sos parce que yi mu wax yëpp am na ci yoo xam ne dafay sos ba pare di tuumal ay nit. parce que yaa ngi jël ay rapport wala ay dara yoo xam ne dara tegoo ci ngay tuumal ay nit di wax loo xam ne ay 92 milliards d'impôts et mais loolu yëpp mais sama la bëgg a ne la bonne gouvernance le président Macky Sall bi nga xam Sénégal ku japp Sénégal xam nga ne tey ci deug lay dox mhm. kep ko xam ne doxal Sénégal di ci doxal responsabilité yo xam nga ne boo ko ci deug tay ya des kep ko xam aussi yaa ngi yor réew euh, xaalisu réew mi wala nga yor al réew mi wala nga yor décision réew mi da ngay xam ne da nga koy dougal euh, da koy jël au mhm. service des populations mais lolu rek doyna une garantie xam nga réew mi problème économique xam nga lu mhm. problème assurance c'est-à-dire ki yor sa euh, alal ki yor sa rew ki yor say décision mu wóor la ne kii bu ko defee dana yemale ñëpp dana ko def na mu war a dana ko def na mu gën a jube Ousmane Sonko nag agenda politique la mu yor li may ñaan mooy man maa ngi ci doog wax. Mhm. suma ma doon ñeneen yi duñ ci wax parce que. ko xam ken xamula def nga parti nga ne man xaram ma jël sama stratégie di wax lo xam ne du deug pour que nit ñi ni ma tontu ma feñ mais bu ngeen ko tonton da ngeen koy may da ngeen koy may man je pense que buñ ko ignorer won bayiko muy euh, sos di wax lo xam du du deug donc Sénégal yi nañ ko découvrir ba xam ne rew mi soxalu ko ngir firndel ne ko deug ndax warta nek ni kon enquête daa na am ngir ñu xam Ousmane Sonko li ñuy wax ndax ndax waxon na fi affaire impôt ñu ni kat député ñu bari seen impôt buñ ko fay demul trésor ban xolé amna deug ci biir kon ndax limu wax tamit ñu def enquête ci biir xol au fond mais li muy wax du information. du information non du information dama la du information. cest dit que diversion parce que état dafa am nu depuis lu yag du tay la commencé lolou muy wax bam fa am ci ay ay euh, dysfonctionnement yo xamné day am dysfonctionnement nekul nekul jalgati dafa peut-être que système bi mo doxul ni mu donc ñu war ko améliorer en tant que expert bu fekkone ne def na la mu def bam fay nek warna naa am ay réflexion yo xam ne dina ko produit teg ko ci table bi ba wax ne li ñu war def pour recouvrer suñu recette donc li la def sen stratégie mais nak do nek fi di dénoncer ba ngay laata dénoncer da nga xaar am parti politique am agenda am ay peut-être ambition personnelle donc di dénoncer loolu il faut pas que ñu jox ko importance euh, état bi am na yeneen prérogative ak yeneen priorité loolu dem di enquête koo xam ne dafay sos. jaajëf honorable député Pape Birame Touré vice président du groupe parlementaire Benno Bokk meeru Jaxaaw mu nekkoon ganuk émission wala sax kon ganuk euh, sunu édition ci digg bëccëg bi jaa ngeen jëf itam mbokk yi lii moo xabaar sant ñëpp ñaan ngeen programme bu leen toxal seen seetaan dana amaat incha allah xibaar 20 heures ci France lay doon bale boobu ñu bokk yendu jàmm ak programme DTV illa liqa aux Jeux Olympiques de Rio. Les Lions du Sénégal, champions d'Afrique, auront fort à faire dans le groupe B. Elles feront face à l'équipe des États-Unis, imprenable depuis cinq Olympiades. Un choc à ne pas rater ce dimanche 7 août à 15h sur DTV. DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablettes. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. bandiraɓe fulɓe wiyoɓe mbimi e mbimami ɗo mawno wonde kala e dundu baba adama nde min calminimon min mbimon kadi juule mo wuuri min calmini galle hilfaɓe dinmi wonɓe leydi ndi kala en calmini ceerno mouhamadoul bachirou mountaga ɗa ha cheikh oumar en juurima e wondude ceerno mouhamadoul madaynou ana noon émission moon pina leydi filanta mon ɗum ko gorko mo doyra woni koɗo men annde ko mansour dine sek so masudine haalama noon onon gandi ko tanum farba bocara on masudine ande woni koɗo men bisimillama masudine ɗo e émission pine leydi d tv